ñuy seeti moom mooy monsieur l'expert mu indi ñu communication bi nga xam ne da koy jëmale ci actualité bi nga xam ne un million cinq cent yu teg deux cent cinquante mille ci ay jigéen yu yeewoo Sénégal yu musul sëy ñoom ci boppam nag taxaw nañu temb tey pour réclamer que Macky li mu waxoon mu def ak ñoom mu def ko expert bi dina ci indi tamit ci xalaatu sénégalais yi nga xam ne bu tabaski jotee dañuy nooyal bu ñu leen mayee benn fan ñu sërëxle ne seen yaramay metti war a seen dooma feebar ba du ñëw moom indi na ci ay question ñu seeti ko dikkati na expert ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwaati na. expert bi dikkati na expert bi ñëwati na. expert bi dikkati na expert bi na. expert bi dikkati na naa bi maa ngi leen di nuyu jëf ci li ngeen ma sagal euh, tey nag damay jël ay laaj parce que indi xam-xam rek di waxte amul ku la gindi day mel yaa xam lépp pour ngeen xam maa xam lépp mën lépp fekk lépp tas lépp leeral lépp lépp ci yéen lay jógee ma daal di koy leeral mu delluwaat ci yéen. yéen laay déglu. voilà salaamaaleykum monsieur l'expert. merci. ginnaaw bi ñu la nuyoo sa teewaay bi ñu lay sant di la gërëm. Mm-hmm, xam lépp. waaw man la Fat bintu maa fi représenté jigéenu sénégalaises yëpp. jigéen 1 mm-hmm. million 500 lu teg yi ñi nga xam ne sont des célibataires maanaam ñi amagul jëkkër. bien sûr. waaw ñun dañoo waaru jommi nañ lool di jooy suñu soxla boobu ba léegi. Mm-hmm. gisuñu gaay yi teew gisuñu kenn. maanaam dëkk bi dafa dëgg rawatina nag wakaam damaa foog ne wakaam moom fa la affaire bi bu joo mm-hmm. waaw parce que euh. Euh, Macky Sall bi mu ñëw en 2000. oui ñu promettoon bu toogee jigéen ñi célibataire yëpp dinañ am jëkkër. incha allah voilà ñun nag boobu ba léegi nag gisuñu góor dégguñu góor. voilà <coughs> d' accord euh, pour kaaw wakaam dama koy ber après ñëw ci waaye kaamu faamu sénégalaise yi tax ñuy wax d'une manière générale mbokk yi jigéen ak góor ñoo war a bëggante. xolu jigéen weñ la xolu góor acier la ndax acier du jàpp leneen lu dul weñ acier du jàpp bant du jàpp ndox du jàpp leneen weñ rek lay jàpp est-ce que yéen a may dégg acier mooy jàpp weñ léegi bu fekkee ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne jigéen ñi ci boppam dañuy xaar góor ñi pour ñu ñëw su ko góor ñi xamee dañuy naqasaale duñu ñëw dañuy taxaw xam ne boo songee am na lu la war ci sa digganteek moom te amagoo li tax nga war a mën a ñeme dem bu fekkoon ne dañu jël sëy def ko ci ni ko lislaam santaane woon ak santaane ba tey kon tey jigéenu senegal kër goo dëgg bu fa amee jigéen bu fa amee fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-ñeent ba ñaar fukki ak juróom sëy nga waaye jigéen yàlla moo ko bind ci mu am kersa mën na laa bëgg xool la te du la ko wax mën na laa bëgg yërëm la te am lu tax moom am wërsëg bi tax mun la koo jox nga takk ko waaye ni ko yàlla bindee xëy na day am kerse ba ndax xamul ki mu ko séqal nan la nara a tëral moom loolu dafa nekk ay point de débauche yoo xam ne il faut ñu dindi ko jigéen mooy jaay boppam nan lay jaayee boppam mooy fexe ba ki koy sees si premier jour ba nga xam ne romb nga ko ba acier bi nga xam ne moom la xolu ku góor ku yoon weñ bi nga xam ne moom la jigéen bi yor bu rombee acier ba ca boppam day ñoddeeku dem ca weñ ba weñ ba ca boppam di xëcc ñëw ca acier ba bu tasee amee gémmin daanee joxe parole noo tudd foo dëkk jox ma sa numéro xamante am seet si war a am bul nangu mukk tasanteeg moom ci restaurant loolu day yéexal mariage bul nangu mukk tasanteeg moom ci ay mbedd loolu day relantir mariage bul nangu di wéet moom foo xam ne dëkkoo fa dëkku fa loolu mariage doot fa amati li nga war a def mooy na woo ko mu ñëw nga indi ko seen kër mu toog ca digg kër ba nga présenté ko ndey présenté ko baay mu présenté wu joxe carte d'identité bi tax ñu xam ci ban njaboot la féete te waajur yi bañ a xeeb ku góor kii ñëw te xam ne kii am ful la ñëw ba sa kër affiché wu ne dama bëgg sa doom yombal ko ko bu ñëwee ba toog ma ne salaamaaleykum bàyyi ko mu dellu waxtaan sa doom bu ñëwaatee toog woo ko nekk ko ci ful ak fayda bu amulee jéem koo jàppale war na ko lii moo am ci kër gi loo am ñëwal loolu mun na accélérer mariage waaye bu fekkee ne dana woo ne la foo nekk nga ne ko maa ngi restaurant bale nañu tasa fale ngeen dem fa jënd sawarma naan fa lu tax seen biir fees bu la jàppee ne nañ doxantu dem auberge ba soo koy topp xëy na doo ko tey ndax mbëgg lay tax ndax weñ ak acier fu ñu tasee ba jàppante am pour nga départage ko problème la kon rendez-vous yi nañ ko seetaan di ko joxe ci kër yi parents yi di ko teewee di analyser waxtaan ak ku góor ki ne ko suñu doom bii de mooy suñu yaakaar bu fekkee ne bëgg nga ko bàyyil garanti sa kàddu wara sa kilifa wara a ca la nga am joxe dat boo saytoo jikko ndaw si bu la neexee ñëwal takk waaye crise économique bi am ci àdduna bi day tax ba ku góor ki nga xam ne yorul dara day yaakaar ne bu duggee ci kër ga dañ koy xeet ndax mariage ñuy jël di ko def ci yenn place yi jigéen bu nekk di afficher sa mariage di ko yëgal ci bërëb yu mag yi mas koddu ak faatu bu ñuy ànd ñu takk koddu defal ko mariage bu mag faatu danaan dama bëgg man am jëkkër ju mel na jëkkëru koddu te wërsëg yee tolloowul waaye état daf ci war a dugal loxoom que état ni mu ciy dugal loxo mooy fexe kër gu nekk ñaari nit wala ñetti nit di fa liggéey bu dee góor la jigéen tamit ndax Ablaye Wade moo voté woon parité jigéen mun na gis góor mun bëgg ko jël xaalis jox ko ne ko lii de xam naa ne moo la tere nga ñëw ci man sëy si waaye bu dee góor bu am jom la dana jël xaalis bi def farata fexe ba fay bor boobu te loolu day faral di raar donc point de rencontre ak stratégie de communication mooy indi li nga xam ne mooy retentissement diggante góor ak jigéen ñu sëy pour le cas de Wakam c'est enclavé Wakam dañu am tradition di dégg ne ku dul lebu du ñu bëgg ci ay jamono boo jógee tëlleen war a nga dëkk Medina war a Faas di seeti xale bu jigéen bu dëkk Ngor war a Yoof war a Wakaam dañ naan ndax ndooy nga sant war a mbeng war a ab lebu la soo nekkul ci ñooñu dañuy hésité xale yu góor yi sax ñoo dul nangu ab bërëb ni di dugg seen ab ci seen koñ di fa bëggante bañ na ko boo demee ba ci soirée dañ naan kii sabab tippoo la kon moom tippoo nañ ko ba mu nekkee xale ba pare donc day sàmm loolu boo xoolee lébu yi seen biir la ñuy ëpp lu ñuy sëy ndax ngir yaatal mbokk yi loolu nag bu enclavé dëkk bi tëju mu am ay critères yoo xam ne moom la dëkk bi wax pour ñu nekk ci dëkk boobu génn bëggante day metti ndax ku la seet di gan si dëkk bi danañ ko lijjanti na diw diw doomu kat la nañu briser frontières yi ibbi enclavement yi xale yu góor yi dugg l'expérience de Cambérène sëriñ si nga xam ne nekk Cambérène li ñuy participer ci jigéen ñi sëy ci biir Cambérène bu ko yeneen sëriñ yi defoon ak yeneen diwaan yi defoon tey jigéenu senegal ñëpp sëy nañu ndax dañuy maye ñu bëggante xam te fan la ñuy joxante te duñu xool alal duñu so xeet ndax ñëpp laay nañu sant amul kii géwél la kii géer la kii ñeeño ba lamanse la kii ouvrier la kii day liggéey kii day nekk chômeur sëriñ bi bu waxtu maye jotee day maye teg ko ci fulla ak fayda donc religion dugg na stratégie économique day taxaw religion remplacé ko xale yu jigéen yi nag am na colin boo xam ne boo ko soloo doo gis ku la takk boo bàyyee say ween pacc ba ñëpp di ko seen nga sol lu gàtt sa tànk weex tàll wan ko koo mbedd mi te ki ko waroon gis kenn rek la bu ko ñëpp gisee kay soxlatul ngay tiitaru ndax boo rombee ñu ne kee den mus damaa nàmpal nit dana nàmp te du tee ween ndax boo ko rombee say ween tóoj ko man cay 15 di ca nàmp jigéen day muur cëram taaru jigéen taaru jigéen du ci kanam ak leer ak maquillage ak wee yu gudd ak wee ñu pop yu pome taaru jigéen gi ci comportement jigéen am ful ak fayda téye yor caabi téye jox say waajur ñu téye caabi waaye léegi da ngay ibbi am na ñoo xam ne dañuy ibbi góor ñoo xam ne double clé nañ yor ak passe loo tëj tëj kànnaar ñu ibbi bañal ibbi bi teel sa bopp xam ne ne am na foo xam ne bu la sa yaay nettalee ne fa la jaaroon soo fa jaaree siggil ko muy tradition la tradition religion économie ñooy participer ci développement sëyu jigéen le président Macky Sall nag pour mu sàmm kàddoom bi nga xam ne dafa waxoon ne dina tax ba jigéen ñëpp am jëkkër ca deuxième tour waa Wakaam su ko sàmmulee na jël décret wàcce ko ne tous les ministres yoo xam ne célibataire nañu ci gouvernement bala balaa mu lay mën a joxati fonction il faut mu xam na am nga capacité mën a yor ñaari jigéen war a ñetti jigéen parce que tamit duñ fi nekk ay directeur di am benn monogamie nañu war a arrêté Sénégal góor bu si suñuwul polygamie duñ la jël kon fonctionnaire boo xam ne état bi da lay reconnaître parce que jigéen ñi dañ fi toog du ñu sëy dem di ménopause 40 ans da ngay ménopause dootoo amati jabar il faut nga am chirurgie extraordinaire boo xam ne dañu lay opérer pour nga mën a am doom wala kéemtaanu yàlla ndax yàlla mën na loolu médicalement kon le problème se trouve que ci comportement yi bu fekkee ne ñëpp dañuy bëgg jabar bu xees ñu ñuul yi du sëy bu ñëpp taamoo taay fiin pataa yi du ñu sëy bu ñëpp taamoo pataa taay fiin yi du sëy mbir bi nekkul ci wang nekkul ci ween ndax wan ak ween yorul sëy loo waŋ waŋ waŋ di nga mës a waŋ loo ween ween ween dana mës las kon bul ko paccal bul ko waŋal gëmal yàlla bul ko pangal bul ko mangal gëmal te lu bees day màgget lu bees day màgget bul ko waŋal bul ko paccal gëmal yàlla bee ko waŋal bul ko paccal bul ko wangal gëmal yàlla bul ko paccal bul ko wangal gëmal yombal bañ ko wekk ci alal nañ ko yombal eh bu ko paccal